salaamaaleykum 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp sunu site bi di 94 fu euh, Sénégal seen analyse chronique yi xam dañ leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal di leen siyaar way leen di toppal 94 Walf euh, Sénégal maître Bamba Cissé wax na dëgg voilà ministre bi moom dafa mel ni gars yi moom voilà ku mu neex rek nga bind lu la neex ci moom voilà léegi nag euh, dafa jot sëkk ñoom ñi nga xam ne ay avocat avocat yu ministre bi di Ousmane Sonko maître Bamba Cissé voilà jot na sëkk ñi nga xam dañuy bind loo xam ne nii la ñuy bind nekkul noonu ñu taxaw ci seen ci seen i mbir voilà xam nga Madiambal Diagne moom yaa dafa yàpp Sonko ngeen baal ah moom lu ko neex lay bind voilà comme lu ko neex lay bind lu ko neex lay wax voilà léegi dafa jot sëkk kon ñu taxaw ci ay mbiram parce que tamit Ousmane Sonko am ministre la Ousmane Sonko Euh, institution la voilà euh, Ousmane Sonko mooy premier ministre buñ ko respecté wut tamit ñu bàyyi ñun ñi nga xam ne ñoo ko tànn ñun respecte nañ wala fekkee da ngeen yor seen journal yor seen wala yaa ma gën xam seen xalima di bind rek wala ngeen jàpp ne maanaam loolu dañ leen ci bàyyi lool moom wax yàlla nekk na loo xam ne Sénégalais yi duñ leen ci bàyyi voilà moo tax chaque jour ngeen di gis ne saa su ngeen génnee euh, def seen la in ci seen i journal voilà nit ñi tamit ñoo moom seen i xel ñëw weddi leen tegal leen ci loo xam ne du ngeen ko mën a dindi parce que tamit dañoo dem ba xam ni seen yi ngeen nekk ni da ngeen cee yàgg loolu Sénégal doxatu ci kon euh, maître euh, Bamba Cissé li mu wax euh, faaw ñu protéger Ousmane Sonko ndax mooy premier ministre voilà ku jóg rek bind ci moom wax lu la neex aywa dara du la ci fekk loolu tamit dafa war a jeex ndax yaakaar naa ne ki nga xam ne ni sénégalais yi ñoo ko tànn kooku war nañ koo respecté voilà loolu ngeen xam ko bu baax bu ngeen ko respecté wut tamit sénégalais yi ñu ci ëpp respecté nañ ko. voilà te loolu xam ngeen ko xam leen ko ba baax a baax bëgg a bind wala bëgg a jaay sa journal wala bëgg a tiital loo xam parce que bu fekkee yéen ñi nga xam ne nii moom euh, xamees nañ leen ràññee nañ leen xam nañ seen i journal am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla jëndatul seeni i journal ndax seen i journal jàpp nañ luñ ca fekk du dëgg loolu sénégalais yi ñoo ko wax waaw am na journal yoo xam ne nii luñ ca fekk ñu bind ko sénégalais yi dañuy jàpp ne lii du dëgg loolu moo tax sonnatuñ ci journal yooyu noonu jëndatuñ ko voilà kon nañ ko nañ ko nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax réew mi daal dañ koo bokk kenn ku ci nekk daal la nga xam ne ni def nga ci say investigation voilà euh, euh, gëstu nga ko euh, leer na bu la neexee bindal voilà waaye jekk-jekk di bindal nit ki loo xam ne daal nit ñi buñ ko déggee dañuy xam lii du dëgg voilà loolu kon jàpp naa ni wax dëgg yàlla ab tooñ daal vraiment dañoo ta tamit dañoo war a dépasser foofu noonu ñoo bokk Sénégal dañoo war a bokk ndey di bokk bàyyi di xaacandoo di dóorandoo ndax mbind mi ngay bind bal jàpp ne dafa koy bind rek mu yam fii ci àdduna déedéet dañuy faatu dañuy dee kenn ku ci nekk la nga daan bind voilà kenn ku ci nekk la nga daan bind ak foo ko bindee ak foo ko mënoon di bindee kan ka bind la lépp bala ñuy dem ci sunu këru dëkk ya daan taxaw bis penc kenn ku ci nekk nga jàkkaarloo ka nga doon bindal voilà la nga bindoon yëpp ñu tegal la ko voilà nga layoo loolu mooy layoo kan yaakaar naa ni Euh, euh, war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax voilà beneen bi ci des tamit moo di Sénégal sensé na <laughs> Sénégal day soppeeku de voilà xam nga Sénégal ganu xamoon ak Sénégal gii voilà ndax gis nañ benn artiste boo xam ni daal fekk nañ ko ca soiréem ñu arrêté soirée ba soirée soirée ba nag voilà bari na fi mu toll ni politique polémique polémique bu ci nekk daal voilà euh, li nga xam ne daal ñun loolu lañ ci mën a jàpp mooy daal soirée moom hôtel bu mu mën a am autorisation da ko war a am autorisation daal daa war a am d'abord balaa dara xew am na autorisation amul autorisation voilà euh, ñoom ñoo xam waaye en tout cas daal Sénégal ga woon moom ak Sénégal gi wuute na maanaam tey jii léegi tollatun foo xam ne ni lu waay neex def bu la neexee nga dem tëgg si soirée doo am autorisation loolu jeex na parce que réewu développement yëpp nekkuñu foofu noonu tey occidentaux yi euh, di réewu euh, développement yi ku fa dem di fa tëgg ji samde ak dimanche la may te da am autorisation pour mën a voilà def sa soirée te soirée bi nag am na fu muy yem voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax moo tax Sénégal gii <laughs> ku gudd fan rek da nga fi da nga fi Sénégal boo xam ne nii xoolal ak États-Unis Afrique lay doon parce que dafa am yoo xam ne nii dañ ci doon maslaa ba mu ëpp ñu doole nga xam ne lu waay neex def la voilà nga xam ne maanaam ñi am doole dañuy gën di am doole lu leen neex def dara du leen ci fekk voilà nga xam ne maanaam boo xoolee da xam ne lii dëkk bu lu waa la quoi lu waay neex def la daal voilà nga xam ne voilà am naa tur am naa image voilà man maay tiw xam lu la neex defal kenn du la fa fekk kenn du la non loolu booy xool Sénégal gi ni muy doxee da xam ne kon euh, ñii ñu fi teg ni jaaxaanu voilà parce que nit bu dee def dara euh, voilà euh, la ci jiitu mooy la nga war a def da ngaa war a am ay kayitam yu leer nañ teg ko ci taabal ji nga def ko dafa am eur bu muy yem nag ginnaaw ba nga am autorisation